man gi nag mooy at mi yépp doo ci loruwaat ba soxla njëkk soñeekoo sa bopp ba nga xam ne at mi yépp doo dema dem ba sa dund bopp ba sa dund njaboot ba kondaay ba fu ngeen dugg jaaxal leen nga xam ne tey loole woon siiwal yore jëwu tëbsi ba def ko ca soo wóorloo sa bopp ne loola moom du la dal mbaa bopp bu amee day nekk rek dogal bu bette waaye yaakaaroo mu am kon yow mën ngaa taw si kii sunu la ci yow su la wóoree loolu nag moom dana la dal ndax fi mu nekk sax jékkuwoo sa bopp kon tabaski du sunna ci yow moom nag dañ koy def ngir sàkku tuyaaba nga xam ne ba ci gone akub dof su fekkee mën na ko rek bëgg nañ mu tabaski bu dee gone mbaam dof nag kayore seen mbir boo leen ñu wutal am tabaski toppatoo leen ko bañu rendi ko nam ware li tax wax nag gor daa fekk booba ñuy teqale gor ak jaam waaye léegi moom jaam amatul ñëpp ay gor lañu bu dee jamono yi teqale boobu amee nag gor rek lañuy sunaal ci moom mu tabaski waaye jaam moom dañ ko moom ak la moom dañ leen a boole moom moo tax du tabaski day dema dem nag ba ñenn xeeti jaamu yàlla yi buñ toppee aadam mu dema dem ba mel ne du rekk ak jaamu yàlla ndax tabaski mën naa am ci gone yi mbaa ci jigéen ñi mbaa sax ci mag ñi nga xamee ne mën nañu tabaski waaye yoruñu kër yoruñu soxna ñooñu du ci ëpp duñu tabaski te fekk na jaamu yàlla la ñoo ñëpp ku ko ci man rek sunna la nga def ko ngir sàkku ca tuyaaba ndax la addis ba ne ku tabaski ànd caag xol bu set di ci sàkku tuyaaba yi yàlla maanaam bëgg yàlla defal la ko tuyaaba bu ëllëgee tabaski ma mooy dox sa digganteeg sawar bu ëllëgee ba nga mucc wasibluha am atam maanaam tolluwaayu dundam xaamu at lay doon magaa bu wéy na fit ba ni ci xar fit daani lañu daan na koy wi wal maasu bay xaamu at lay doon wam ji daa um akub tàmbali fit daani ci atum ñaareel ma nga jàngi wam tadaa te mu tàmbali fit daani ci atum ñaareel ma lañuy tabaskee yoon mooy wax na war a toll ci dund ba mat tabaski bu dee xar moom su amee at mu mat rek doonte benn fan la duggee ci atum ñaareel ma it baax na bu dee bëy moom dañuy bëgg ma am at ba dugg ci atum ñaareel ma dugg gu fés mel ne weer mbaa ñaari weer wa daaxilun ak aju dugg fii arbaxin ci ñeenteelu at minal baqari ca nawet wal iblu gëléem xadd xabara jéggi na fii si di sini na ci juróom-benn at la ñuy tabaskee mbaa la ñuy def addiyu bu dee gëléem mbaa nag nag moom na am ñetti at ba dugg ci atum ñeenteel ma doonte sax benn fan rek la ca duggee gëléem itam na dugg ci atum juróom benneel ma doonte sax benn fan dong la ca duggee dal nay doy wayam naaw dana aaye ak ijji saa doy ga junoonun ak dof aw bakamun wala ak loowu aw xarajun wala ak làggi aw awarun wala ak pat awin basham wala ak fër aw maradun wala tawat aw baxarul wala xesawu gémmiñ awit mbattaru wala dogu geen ba ci gannaaw aw jarabul wala ak ram kazalika ni xusaadu làpp maanaam am yooyaay in zahara dem feeñ na day wax nag sikk yi nga xam ne mooy tax loolu du mat tabaski du mat addiyu bu doxee dof ñu ko nit defe ak jur mën na koo def su xasee dof rek matatul tabaski ba tey bu dee dafa luur du matal tabaski luur nag mooy bu dee lu mel ni nag mënta naañ wala bu dee xar mënta meem wala bëy loo xam ne mënta meem xat boo ko yàgg bind tam fekkee amewu ko rek ak luur la du mat tabaski bu laajee itam du mat tabaski su bët ba partee rawaatee na ñaar yépp ñu ne kon dafa gumba du mat tabaski ba tey nee nañu bu fëree fër bu ëpp te loolu mooy biir bënn yi fooda daan ndax daa lekk lu mel ne perméable ba leneen loo xam ne daal tax na biir ba ney fooda daan kon ba tey mëtadul tabaski te bu doon fër gu ndaw rek fër gu ndaw rek moom du ko tee mat tabaski ak bu gimiñ nga xesewee bu gimiñ nga amee xet bu naqari daal day manqué tabaski bu geen ba ca gannaaw daggee te la ca dagg bari nga xam loo ko defoon ñetti xaaj la ca dagg mat na benn ba kon du doy fekkoon am na ca dagg nag waaye boo ko defoon ñetti xaaj du mat benn ba kon doy na bu ràggee itam sikk la du mat tabaskee nii bu yooyee ko ëpp nga xam ne amul yokk yax yi amul yokk ndax dafa yooy ko ëpp ba tey du mat tabaski in zahara den feeñ na jéem wax salaa bi day wane ne ci yépp lay dellu la dalee ca ndox gam njëkk a tudd ci sikk yi ak yi ca topp ba ci làpp gi mujj a tudd làpp mooy yooyu yooyu yépp bu doonee sikk su fés su ràññikoo ràññiku la koy yàq ba du mat tabaski waaye su fekkee amul solo xëy na ci moom nii rek waaye amul solo mbaa sax da nga ko ci yeex a xàmmee kon boo ko tabaskee mu doy waaye nag na sikk say ñàkk-ñàkk solo mu bañ a jaam bañ a am benn benn sikk moo gën ndax demam lu ñuy jaamoo yàlla la mucc ca sikk moo ci gën yaa gisa tub baax yi ak aji wow pat wa daatu ummin ak borom yaay wax xiyati buy jaay àll aw daatu xarnin wala borom béjjén yëndu yi moom dana nàcc su batt ba wowee nga xam ne amatul soow loolu mooy batt bu wow ba tey kon du matati tabaski dañuy sàpp itam la ngay tabaskiyee nday nag bàyyi ñépp bokk ci juri kër yi waaye su fekkoon ne bëy yi dañoo dem ca àll ba tase faat kéwél yi ñi jotee di góor yi jigéen di jotee la cay juddoo moo tudd warale nga xam ne genn wàllam daa bokk ci juri kër yi genn wàllam bokk ci rabi àll yi loola du mat tabaski yi léegi ne nag te bu mu amee béjjén bi nàcc mu amee rek béjjén bu wérut ndax su fekkee ne béjjén ba nàccut waaye wérutit lu tax mu baax su fekkee nag béjjén ba damoon na waaye wér na kon baax na waaye nàcc daal ñàkk gaa nàcc moom da ci am solo mooy rek mu wér te comme damoon na moom béjjén bi waaye wér na daal kon doy na tabaski doy na tabaski waaye nag bu béjjén ba dëmbut boo gën bu béjjén ba dam afdaluha la gën ca tabaski ba mu mooy xar fa maasum topp bay fa baqaru topp nag te ibilu topp gëleem neex ma amul borom assamin aji duuf jë wa zakaru ak góor ga day wax ne bu dee ci tabaski moom na gën a baaxu yàpp mooy gën kon gàtt mooy gën ndax gàtt moo gën a baaxoo yàpp nag ak gëleem gàtt itam xar moo gën bëy boo weesoo xar ak bëy itam nag mooy gën gëleem ndax yàpp nag dafa gën a yomb a jariñoo gën a neex yàpp gëleem lu ñu tabaski lu ne itam la cay góor moo gën la cay jigéen xanaa bu ñu nee xar moo gën ci lépp lu ñuy tabaskee xamal ne xar bu góor ma moo gën bu jigéen ma bu dee bay moo ca topp it bay wu góor moo gën wu jigéen bu dee nag moo ca topp it nag wu góor tabaskee ko moo gën nag wu jigéen gëléem door a ñëw nag gëléem bi gëléem gu góor ga moo gën wu jigéen ga ba tey ba ñu tàpp moo gën ba ñu tàpp bu fekkee ne ñoo yemoo ak duufaay wala ba ñu topp gën a duuf bu fekkee ne nag ba ñu tàpp daa gën a duuf day daal di gën tabaski ma nekk lu suur maanaam nekk lu duuf lu ñu soppa sopp la am na nag yooyaay bi yoo xoon ne moom mooy yooyu ba àgg ci amul yuq ca yax ya bu ko defee moom du doy tabaski waaye nag lu mu gën a suur rek gën a baax wajaaza dagal na tashriku qaribin bokkaaleel ak jege ñaare in sakkana dem dëkk naa moom mu bokkaaleel ko fil ajri ca yool ba mahbu ànd ak moom fil ayaani ca biir njaboot ga wal mu ali ak dund yëpp wala aajo yi njaboot ya maanaam dañuy wax ne su kenn ku ne defee dara ñu jënd ab tabaski moom du baax kenn dañu am tuyaaba ci ñoom ñu def loola mu ne nag bu fekkee ne kenn rek moo wut ab tabaski mën naa yéene waale ca tuyaaba ja ak lim ci ay jegeñaaleem maanaam ay mbokkam bi ñu sàkk ñu yem juróom-ñaar mën nañoo ëpp juróom-ñaar waaye nag loolu lépp ci kaw ñetti sart sart benn ba mooy nañ doon ay mbokkam buñ doon ñaareel ba mooy nañ bokk genn kër guñ nekk ñetteel ba mooy mu leen di dundal boole ca doonte sax dundale ga yoon tegu ko ko moo ko coow réew rek bu ca ñett sart yi dajee daal mën na leen yéene wàlle ca tuyaaba ja ñu daal di am ca tuyaaba ja mel ne ku tabaski waaye nag ñetti sart yi bu ca benn xëttee rek bu leen bëggee yéene ca tuyaaba ci tam du tax mu sotti mel ne ñoom ay jàmbur lañu duñu ay jegeñaaleem mbaa boog ay jegeñaaleem lañu waaye dañoo bokk te mu dëkk ci genn kër mbaa ñoo bokk dëkk ci genn kër waaye dundalu leen yooyu yëpp bu ñu bëggee boole ci tuyaaba ci dam tax mu sotti nangu nañu nag mu benn boppam am tabaski yéeneel ko boppam wutaat nag meneen ci alali boppam yéene ko meneen mbooloo ni ki ñeneen ña ko soog rek mu yéene leen tabaski moomee nga xam ne ñoom la ko defal koy ñoom ñëpp daañu am tuyaabee tabaski doon ci sax dañoo woomaloon mën a wutal seen bopp tabaski tuddee tabaski wàcc na leen te daañu am tuyaaba ja wa waqtuha waxtu tabaski wa baada salaati ayidi nekk na ci gannaaw jullit ayit ga ilaa xurubi taalisi ba ca suxub bisub ñetteel ba asaayidi bay aji barkeel daa wax ne ñetti fan ñii muy bisu fukkeel ak bisu fukkeel ak benn ak bisu fukkeel ak ñaar ñetti fan ñii boo ci rend rek dal ngay am tabaski teewul nag rend ci bis bu njëkk bi moo gën rend ci ñaari fan ña ca sës su dee bis bu njëkk bi moom waxtu rendi wu mooy degam ilimaan am na te am na tabaski boole ci balaa kenn rendi day bàyyi ba ilimaan julli ba xutba ba rendi su ilimaan amul am tabaski wala am na ko waaye àndaale wu ko ca jullikaay ba kon ku ñibbi da ngay toog ba tolloo ni ba jàpp ni ilimaan bu fekkoon ne amul tabaski itam ren bi xaj na fi war naa ren ba noppi su fekkee itam am na ko waaye da koo génnewut mu toog ba tolloo ne ne kuy si ilimaan war naa ren di ba noppi mu daal di ren di bu rendee nag ndekete jiitu na ilimaan it du ca wàññi dara tolloo ne rek daf dale ba jàpp ne ren di rek moo ko ca war waaye nag nattale boobu nga xam ne moo ko ca war bu fekkee defu ko daal di àgg daal di leen di saasa rek kooku moom su jiitoo imaam baabu defandoo moom du doy bisu ñetteel ba nag bu jant ba soyee rek tabaski jeex na déwén rek lañ koy mënati mën na buñ nee tey jii di àllarba mooy tabaski suba di alxames ba tey bisu tabaski la ajuma bisu tabaski la ba jant bay soog ca ajuma ja ba jant ba xasee so nag jeex na déwénati rekk wa shartuha sartam ba fii xayri yawmin ci lu dul ab bis aw walin buy aji jëkk toloobu fajrin moo di fenkuk fajar kal hadaaya ni ki addunya martil na nga misaal te yemale leen bis bi nga xam ne mooy bisu tabaski yi moom waxtu ren di wa dagam ilima am na moom nga dégg léegi muy ca yooyoo ilimaan jullee ba xutba ba noppi bis ba ca topp nag di bisu fukk ak benn ak ba ca toppaat di fukk ak ñaar yoor yoor ba moo ci gën ci kuy rendi ku rendi ca guddi ga moom du doy lu koo nga yàkkamti yàkkamti ak lu mu gaawantu gaawantu na fajar fekk njëkk guddi gi jeex ba njëkk bi tàmbali mu doon rendi waaye bu rendi njëkk fekk mu fajar moom du doy day mel ne tabaskiwut faaw rek na bàyyi ba fajar fekk te la ci gën mooy sax mu bàyyi ba yoor yoor loolu mu wax nag ci tabaski loo ngay wax ci addiyo li ñu wëtee mooy addiyo moom bu dee bisu fukkeel bi dañ koy def ci gannaaw bu ñu sànnee jamare aqaba ba noppi ndax ñoom ñee aj du ñu sunaa ci ñoom ñu julli julli tabaski sànni nga jamare aqaba rek mooy wecci seen julli tabaski bu ñu sànnee jamare ba noppi lañuy rendi bis ba ca topp nag ak ba ca toppaat ñoom ñee def addu yu foofee ñu bàyyi ba yoor yoor moo gën waaye nag su fajar fenkee rek waxtu rend wi tàmbali na diwéy nag ba jant ba soog guddi ga rek du kenn mënta rend wi wa yustahab bu def na sopp saabi an wilaadati ca bisub juróom-ñaareelu juddu liir ba xaqiiqatum am tudd shaatu ab gàtt lay doon te baaxaa boobu def na ko mata tabaski maanaam kóolal seen tabaski mu mat ko aadatan ci aada an kulli mawloodin walis bépp liir bu képp ku judd rek yu xàq koom def na ko tudd wala unsa ak doonte day jigéen gàttu tudd melu soppa sopp la waaye nag la ñuy sart ci tabaski lañ cee sart bu dee ci tolluwaayu at ak bu dee ci sécurité mooy bu lépp rek ñoo ko bokkulee gàtt boobu dañoo sopp bu liir bi juddoo ba àgg ci bisub juróom ñaareelam ca yooyoor ba ñu tudd ko tareen di gàtt boobee nee nañu dafa tudd rek ab gàtt waaye moom tabaski ñooyu moom mënees na ko defee itam nag wala gëléem waaye at yi waxoon rek ca nag wala gëléem ba tey mooy doy fii ci tudd doom bu doom ya de ay cheikh kenn ku ne dañ koy defal tuddu boppam tudd bi itam faaw gannaaw bu faja fenkee lañu koy rendi buñ ko rendee ci guddi gi du doy dañu wax ne waxtu woon sopp daal mooy la dale ci fajant ba fenke ba tisbaar jot foofu lañ gën a soppe ñu tudd fa rendi tudd ma bu tisbaar jotee nag la fa dale jëm jant bi sopp dañu koo sib mooy bëgguñu nga yéex a tudd ba tisbaar jot nga door di tudd bi rendi kon mënees naa takk ne tudd bi buñ ko rendee ca guddi ga maanaam diggante ba jant ba sooyee diggante nag ñuy salaatu ba nga fa rendee tudd ma bu doy gannaaw ba fale fekkee ba ñu salaatu itam diggante nag jant ba fekk ba nga fa rendee tudd ma dana doy waaye def nañu lu ñu si nañu taamu rek yoor yoor ba ni ko waxe woon léegi wala mu xaar bisam ba yóbbu waaye def na ko wàcc ifa fadru sabaq moo fi nekk lu mel noonu bu ma fay masaa toll daanaka wax li ci naxu yi seet waaye defam wax nañ ko ba tàyyi jërum bi koy baamuwaat mën naa wax idal fajr ndeel fajar sabaqa jiitu na juddug yor ba ba tey mën na ne ida sabaqa ndeel jiitu na te mooy sabaqa joo xam ne moo ko fi tolloole diggante ida ak al fajr te ba doon jéemu séew bu ñu nee liir bu juddu te bisu juróom ñaareelam te ñu koy tudd yàlla mu bindee fan yi moom juróom ñaar la ñu tàmbaloo digal ba ci gaawu waaye nag day def léeg-léeg bis ba liir ba juddoo dañ ko wàññiwaale ci juróom-ñaari fan yi léeg-léeg itam duñu ko ca wàññiwaale mën ngaa takk nag ne gannaaw bu fajar fenkee ba leer nga xam ne solaat nañu la dala foofu ba jant bay sox ku fa juddu ba leen juróom ñaari fanam ndax bëgg xam bis ba ko juddoo boo ci wàññiwaale bis boobu nga xam ne ci la juddoo mel ne bu ñu nee tey la alxames gannaaw bi ci solaatoo ba noppi wala ci yoor yoor ba tisbaar ak ku juddu ñu wàññi juróom ñaari fan te bañ cee boole alxames tàmbale rek ajjuma bool yi su boobaa yaa ngi daanu ji ca alxames loolu moo waral ngénte doon bis ba juddoo bu dellu see ndax ñàkk bu nekk la ñu waale bis ba juddoo mën ngaa takk nag ne la dale fa jant ba sooyee ba fayal bi fenk ak sax bu tollee fayal bi fenk muy solaatam guddi gi yépp daal ba ci fajar ak fajar fajar ñaar moom ku ci juddu boo yem juróom-ñaar da ngay wàññiwaale bëccëg bee ba ko jëm soo ko wàññiwaale nag bëccëg ba nga weesu bu dee soo moo doon ngénte nga mel ne jant bi sol mu nekk ci guddi goo xam ne bu xëyee alxames lay doon laata fajar di fenk wala ba mu tolloon fajar di fenk am ko juddu da ngay yem juróom-ñaari fan te boolewaale ci alxames su boobaa nag àllarba ji nga weesu démb bu delsee ca lay daanu ji mooy doon ngénteem kon ci takk-takk bu leer boo xam ne ñëpp a ko mën a xam da ngay wax ne fa jant ba sooyee ba ba ñuy solaatu ak sax bu tooloo solaatu ku fi juddu rek bëccëg ba nga weesu bu delsee mooy doon bisu ngénteem danaa bu ñu salaatoo ba leer nag la fa dale ba jant bay sox ku fa tudd bis boobee bu dee seen mooy doon ngénteem loolu takk-takk la boo xam ne yomb naa xam nga xam ne daanaka xawata jarati laaj yu baaxu def na daka nangu la ngay ñëw ak kunu kunu taahimu lekk lépp luy aju laatu wa kullu baxriyin ak lépp luñ ko di géej wa kullu taayin ak lépp gannaaw daa ko defar waxal la yu mu sañ a lekk yu mu sañ a naan ak yi nga xam ne araam na ñu lekk ko mbaa sib nañu ñu lekk ko mu tàmbalee ci lépp loo xam ne dañu wax jimbe laab waxoon nañu ne laab na xam ne loola dagal na ñu lekk ko weesu na nag bunt ba nga xam ne ca wax yoon jëmm la laab waxoon na ne bu ñu nangam laab na moom dagal na lekk waaye daa fekk mu amuloon faaw te aajowoo ñu rendi ko loolaa koy taxa dagal bu ñu nee nag lekk lu dagan a lekk mbaa naan lu dagan a naan soyees na ko rek yem ci xam ne kat mën naa dema dem ba lekk nga mbaa naan nga nekk mu war a war gis ko sañ a bàyyi te loolu mooy faaw mu naan lekk itam lu mën a sàmm ak dundam lu néew néew ak lekk wala naan faaw mu war di lekk ak naan lu tolloo ngay sàmm ak dundam ndax suñuta xaru bu ñu nee yëpp jullit bi kat li yàlla dagal na ci moom bu ko neexee jëfandikoo bu ko neexee bàyyi mën naa dem ba bàyyi nga araam ndax di wax jolow ci lekk baanaan bu ko defee ngir bëgg a dee rek ba kanam jóg fi daal def lu araam ngir suñuta aaye boppam lekk naan ndax bëgg a dee loolu bu ko defee xam lay doon te kon lu araam lay doon man naa nitam jëfandikoo nga la ñu ne lu dagan la weesu dagan ba àgg ci sopp mel ne bokk xëdd lu ci nekk ak lekk la baag naan waaye du mu sopp la baag ne ñeen ñi sax dañ koy àggale ci sunna man naa amit lañ ne woon jullit sañ na koo jëfandikoo mu doon lu usi mel ko doon mel ne xeeti ndegmeen ci rab yi fàdd bu dee ci yoonu al imam Malik dañu sit ku lekk seen yàpp di sit ku naan seenum soow kon bu ñu nee lu dagal mooy loo xam ne sañ ngaa def sañ ngaa bàyyi xamal ne nag mën naa am lu ko gaar ba mu soppiku lu war mën naa am lu ko gaar ba mu soppiku lu araam mën naa am lu ko gaar ba mu soppiku luy sopp mën naa am lu ko gaar ba mu soppi ko muy sib bu ci kenn ci yooyu amul nag mu doon ragam kese yem ca li wax ko nag mooy lépp loo xam ne waxoon nañ ne laab na ci njëlbeenu téere bi rek dagal na ab julit lekk ko ci kaw sartu ñu rendi ko bu dee nag ñu rendi mu teg ci ak lépp loo xam ne yàllaa ko sàkk te mu juddoo ci géej lépp loo xam ne rabu génn rek du aajoo sax ren bi bu mel itam sañes na koo lekk moo xam jën la moo xam jësit la moo xam bonaat la ba sax bu ñëwee doomu aadama ñu koy wax aadama jëm baax ni ak sax bu dee mbaam fa géej ak bu dee sax kan bu baax ni xarit géej yooyu yépp dafa moom yàllaan ko sàkki ci ndox bu juddoo ci ndox rek sañas na ko lekk doonte daa mel dama bëgg ca sart ak ren bi da cee teg nag ak lépp lu naaw bu dee ci yoonu bàyyi moom lépp lu naaw rek dagal na ñu lekk ko doonte sax dafa amee weex ma ñaw mbaa sàlloo ñaw du fàtt morom may te tey ci yoonu bàyyi